asalaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant ñu am mbégte ñëw ak yéen ci bii émission ak professeur Cheikh Oumar Diagne mu nekk personnalité boo xam ne tey bu ñuy wax ci moom jarul sax ñu koy présenté ci lu bëri ndax tey fexe na ba Sénégal xam nañu ko ndax posture yi nga xam ne da koy ak position yi nga xam ne yi claire sans ambiguïté yi nga xam ne koy jël ci ay yoo xam ne dafay dem ci mbirum Sénégal ci mbirum askanu Sénégal mi nga xam euh, le troisième mandat et les ressources naturelles euh, ñu bëri jàpp nañu ne boo gisee les appétits sont sont sont aiguisés euh, ñu gën a intense c'est parce que acteurs politiques ñoom ñëpp xam nañu ne Sénégal ci exploitation pétrole ak gaz la jëm donc kenn ku nekk bëgg na fekkee léegi quel type de politique vraiment ce pays la mérite pour pour de pareils enjeux waaw Sénégal man dama jàpp ni tout est à refaire man euh, sëñ Tidiane dama gëm ni rien n'a été fait boobu ba léegi boobu on faisait du surplace dañu nekkoon di yàq temps di yàq ay ressources di yàq énergie rien n'a été fait suñu toogee ba tey jii nga gis ni euh, exemple bu ndaw euh, semaine bi ñuy wax ay soble yu gars yi di multiplier di si benn si benn circonstance su màggal quand je te dis que la consommation d'oignons selon le ministère du commerce mensuel tourne autour de vingt sept tonnes euh, pour le Sénégal su ñu arrondirait à trente tonnes ça nous fait une consommation euh, annuelle de trois cent soixante mille tonnes la ñu soxla pourtant le Sénégal produit quatre cent mille tonnes d'oignons chaque année donc ñun en principe sax dañu war woon sax importer euh, soble jàmbur ndax on fait plus que ce qu'on devait faire en, en sucre kazalik en sucre l'OMS donne un, un, benn ratio nit bu normal li mu war a consommer suukar ci at bi c' est de neuf kilogrammes de sucre par année et par individu kuy consommer lu ëpp lii mën ngay gaañ sa bopp mën ngay yàq sa bopp lii nii soo ko soo ko calculer pour seize millions dix-sept millions d' habitants ça fait cent quarante quatre mille tonnes année bi pourtant CSS produit cent cinquante mille tonnes chaque année donc ñun on a des autosuffisances sur beaucoup de choses léegi nag cool yi mooy pourquoi ñuy jéegaane lépp ci biti. problème de répartition la alors. problème d'administration de gouvernance euh, problème de de de de sax de de de de modèle problème de de responsabilité donc ñun dañoo am kon problème Sénégal kon bougé gul léegi nag quand on parle aujourd'hui de modèle bi ñu war a dem wala dëkk bi ñu war a dem euh, man gëm naa ni euh, pétrole gaz gaa ngi si wax lu bëri man peut-être j'ai une vision un peu singulière par rapport à ces ressources là man jàpp ma ne ressource bu extraordinaire la pour man ressource la bi nga xam ne par rapport ak jamono bi ñu toll avec la transition euh, bu ñu nekk par rapport ak euh, diversification yoo la dund par rapport ak lu bëree bëri man gëw ma ni war nañu taxaw accès suñu développement ñun ci ñaari ressources yooyu ñaari ressources yooyu am nay dëkk yoo xam ne amuñu ko te ils sont en avant on a tout ñun on tout ñun on tout ñun on des personnes te lii mooy ressource bu gën a am solo ci dëkk on a une spiritualité on a sax des modèles euh, spirituels dans ce pays là yoo xam ne kenn ku ci nekk koo si jël xool jàngaleem gis ne kii dafa mel ni résoudre na problème mu adduna bi yëpp jëlal ay ay téere Cheikh Ibrahim Niass wala nga jël téere Seydi Hadji Malick wala Serigne Touba mais ni ils ont résolu les problèmes de l'humanité tout entière ñu jël seen ay téere au lieu ñu jël ko jariñoo ko exploiter ko en tant que des intellectuels ñu def ko ay woy ak ay bàkkukaay pour di jéem a concurrence en fait nous avons rien compris li donc aujourd'hui nous devons essayer d'aller de l'avant jéem a def dara boobu léegi defaguñu dara wax dëgg yàlla donc euh, pétrole gaz pour man amuñu sax jumtukaay yi ñu ko mën a jëfandikoo euh, jariñuñu naruñu si jariñu la loi bi ñu am. le partenaire là d'exploitation kooku pratiquement mooy jël quatre-vingts pour cent yëpp. mooy jël lépp ñun on négocie mal tous nos contrats et c'est propre du Sénégal depuis ses indépendances ndax les occidentaux sont toujours débrouillés pour mettre à la tête de pays des vallées. des gens qui ne discuteront absolument pas seen ay privilèges donc ñun ñuy fis dëkk ba tey ils sont sont des jouisseurs en réalité donc ñun aujourd'hui muy Macky muy avant Macky Abdoulaye Wade wala wala wala Abdou Diouf ñëpp ñu ngi doon liggéey de mais ils n'ont pas travaillé pour nous liggéeyaluñu donc euh, il nous faut nag changer dëgg-dëgg li en mettant à la tête de ce pays un homme maanaam un vrai homme Euh, homme nag dañ mosuñu koo am dañ ko waa ji fi nekk moom jàppee moo ko un vrai homme man daal ab topp laa ko jàppee ab topp wala ab geenu Macron waaye du un vrai homme un vrai homme doit savoir les intérêts de son peuple sont bi xam ne euh, il donne le bon chemin ba def ci taxaw nekk ci pourtant ku ñu naw la à l'international ma na xam nga kan moom waaw c'est que ko naw nawuñu ko dañ ko fonk dañ ko fonk trop xam nga tax fonk ko sur le plan international surtout africain ndax du wax d dañ ko fonk ndax du wax diirit lu waay bëgg lépp luy nasaraan lu mu bëgg si dëkk bi moo xam pétrole la moo xam gaz moo xam ay suuf la lu mu mënti doon. pourtant président africain dañ ko respecté. non président africain yi dañoo yàgg respecté Sénégal au contraire dellu Sénégal sax mu ngi commencé wàññeeku tu sais Tidiane Sénégal dafa nekk lu extraordinaire ma sax président bi yow sénégalais booy génn si biir continent bi sax lay fan man damay am chance je sors beaucoup sur le continent mais les gens dañoo naw le sénégalais parce que sénégalais dafa am benn mythe bu am ci sénégalais dañoo jàpp ne sénégalais dafa raffiné dafa am classe sénégalais dafa lii sénégalais dafa laa même les femmes de l'intérieur du continent rêvent d'avoir un mari sénégalais donc Sénégal dafa am benn position bu mu am ci biir continent africain bi nga xam ne ki du question mais histoire histoire du Sénégal. ñuy ñëw Sénégal fii. dañoo naw. wax ci Sénégal naan mais yéen il nous il en estime et c'est normal même jamono colonial Sénégal moo nekkoon dëgg-dëgg moo nekkoon le centre. les premiers intellectuels de l'Afrique de l'Ouest fii yëpp ils ont été formés ici dañoo dem ñibbi gars yi xam ne kii est du Sénégal dafa am xam-xam dafa am benn image du Sénégal bu suñu voisin amoon. man xam naa ay dëkk yoo xam ne boo jàngee Sénégal fii boo yeggee on discute pas de son CV. ah oui c'est vrai man Gabon rek j'ai des étudiants yoo xam ne ils me dañ ma dis carrément ne ma ne ma monsieur ñun suñu demee ñibbi suñu dëkk avec le diplôme du ñuy liggéey directement donc pour dire que vous avez des diplômes vous êtes là au Sénégal n'ayez pas la préférence de rester au Sénégal euh, allez euh, vers les autres pays bu leen xool xoolee teg bët dëkku tubaab bi États-Unis France nangam le monde ne s'arrête pas là-bas nañ dem dans la sous-région Cameroun a ngi fii ñoom Gabon dëkk yëpp nga xam ne boo fa demee vous pouvez trouver des solutions wax dëgg yàlla donc pour dire que man jàpp naa sax ni image Sénégal dafa déprécié wu su Macky Sall la diplomatie sénégalaise dafa dellu ginnaaw lu tax may wax loolu da ngay xool naa exemple bu ndaw euh, a voulu être en euh, en l'Union africaine euh, ñu jox ko président président jox ko avion Sénégal jox ko carburant lépp mu wër pour dem uti euh, soutien wu pays africains yi ñun les pays africains yu gën a jege sax ils n'ont pas voté pour le Sénégal. Guinée Conakry gi woote. et lii ñu war a interroger quels sont nos rapports avec nos voisins ba tax ñu am suñu candidat ñu bañ ko voté. yan rapport la ñu am ak les autres comment ils nous voient instant yi ban rôle la Sénégal nekk di jouer. war ko yóbbu Libye fii ONU moo ko proposé pour la médiation la xaw ma. Ah les gens ont refusé. c' vrai donc kon image Sénégal mu ngi détérioré wu sur le plan africain donc à l' international dëkkutuwaay moom Sénégal c' est un bon élève. FMI Banque mondiale ñu Sénégal loo ko wax dañ koy def ay yambara fa nekk moom Sénégal moom c'est bon élève euh, dëkk tubaab bi tamit kilifa tubaab jàpp tamit président Sénégal du werante ñoom moom il est très gentil il maanaam ñu il donne tout il donne tout su leen nuyu sax dafay dafay sëg gisoo mag yi bu demee dëkk tubaab bi bu leen nuyu sax dafay mel ni kuy sëgg mel ni ku gisanteeg yonent yàlla Muhammad ah macha allah nga xam ni kon vraiment il y a il y a un problème mais en tout cas euh, le plan africain. maintenant c'est la formation ou voilà. ou bien c'est le leadership la. ban président yi nar am bi nga xam ne dafa nar a wan les autres pays africains que maak yéen ñoo far seen ay problème samay problème la ñun ay mbokk lañu. bañ a doxal ay tubaab suñu ay diggante mu nekk ay rapports yu sincère maanaam lii bu amee l'image Sénégal dina defarwaat ba ñu considéré waat Sénégal ndax aujourd'hui Sénégal dañ ko jàppee benn pion wu euh, dëkku tubaab yi kese ah ce sont des gens xam ne waa d'ailleurs le Mali mu ngi wax mu ngi wax récemment sax ne Sénégal ak Côte d'Ivoire euh, si ñoom la France jaaree pour jéem a déstabiliser son pays il pointe du doigt le Sénégal et dafa ñaaw waaw dafa ñaaw ah donc. Euh, c'est grave euh, la problématique du troisième mandat ñi jàpp nañ ne président Macky Sall tey maa ngi gis euh, benn constitutionnaliste. en tout cas noonu lay woowee boppam jàpp nañ ne la loi. permet au président d'aller vers un troisième mandat. am na ñoo xam ne nee nañ non même si la loi le permet le président wax na ko pare donc sa parole à la valeur d'une constitution ou d'un texte. yow nan nga ko jàngatee en tant que acteur en tant qu'observateur mais en tant que leader d'un loolu yi fi la. Euh, képp ku taxaw di soutenir ne yi mën na nàngam ak wala mën na nàngam tappalekat nga man loolu moom vraiment c'est clair euh, et net suñu xoolee quel quel a été le grand problème bu tax sénégalais yi mere Ablaye Wade ba bëgg ko fi jëlee kut ko kut ne tout sauf Wade tout sauf Wade lu ko andi c'était un troisième mandat euh, ci biir loolu des acteurs politiques ont eu un consensus ñëpp d'accord ni lii du yoon ba Macky Sall si ba mu taxaw di ci wax ci ci ci ci kanamu sénégalais yi donc aujourd'hui bu Macky Sall ñëwee ba changer constitution ba ñu bind en noir et blanc que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs point il s'agit pas de cinq ans sept ans comme amalgame bi ñu bëgg a créer question de mandat consécutif la deux mënoo ko weesu donc kon képp kuy waxu Macky mën def troisième candidature je parle même pas de troisième mandat mais troisième candidature c'est parce que tappale ñu ëpp ñu koy wax nag ñett yi la c'est des gens yi xam ne dañoo am intérêt à ce que Macky reste au pouvoir la la la la la team des jouisseurs ñu wax des jouisseurs c'est des gens qui sont en train de jouir du Sénégal bëgguñu ñu yàqal leen seen noos muy benn ñaar c'est des gens yoo xam ne ay truand lañu ak ay sàcc yoo xam ne xam nañu Macky bu daanoo bu fi jugee ñam seen place si au ñuuf dañuy dem kaso donc ñii ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky di di di di di di yaataa yumbe ñett ñii ñëpp bëgguñu bëgguñu nguuru Macky jeex on les comprend waaye nag suñuy xool juridiquement. mais Barth quand même wax na ne Macky war na mën a dem troisième mandat quand même kooku il n'est pas dans ce ah non no non ku fi taxaw ne Macky mën def troisième mandat waxoo dëgg ak koo mënti doon ak koo mënti doon waxoo dëgg fii Sénégal nangu nanguwuñu troisième mandat la ko. mais loi bi amul dara ak bëgg-bëgg nit ñi bi nanguwu ko. à la constitution. mais il y aussi la volonté populaire. dedans de choisir entre la volonté populaire. et ce que peut-être. moo tax may li nga wax nii répondre na question bi. la constitution dit que la souveraineté nationale appartient au quelqu'un bu bëgg a diriger askan bi te faalewu peuple boobu kon yow wax dëgg yàlla xamoo la mooy souveraineté waaye ñaareel ba euh, le président dafa waatoon ba muy dugg en fonction qu'il va garantir et faire respecter la constitution ci constitution la waatee woon bu fekkee ne dem na ba bañ a respecter constitution boobu mooy ko wax dëgg yàlla kon on est dans du n'importe quoi wala on n'est plus dans un état de droit donc aujourd'hui euh, suñuy xool ci wàllu yoon ak ci wàllu éthique ci wàllu esprit ci wàllu lettre en fait dans tous maanaam Macky Sall mënul def une troisième candidature et man gëm naa ni ce n'est pas. précise xam nga les font la confusion. Ah euh, ñu naan way du am troisième mandat. balaa ñoo mooy nga nga présenté wu ba gagné. voilà man troisième candidature laa nangulu. candidature wala sax voilà. Macky mënul def une troisième candidature man gëm naa ni c'est pas dans l'esprit de Macky c'est que tu es l'un des rares leaders. politique qui utilise le bon terme. ah oui c'est le bon terme waruñu def amalgame. l'opposition ils te disent euh, non il ne fera pas un troisième. waruñu def amalgame troisième mandat dañ ko fi bañ. ah waruñu def amalgame nga waxu mandat xanaa jaar ci élection ba. troisième candidature la Macky amul droit. man ma gëm moo tax man ma gëm ne peut-être sax bu naree ba tàng tàng nañ ko bàyyi mu def candidature le peuple choisira. waaw non c'est que foofu sax dañu war lu yegg ndax c'est que su boobaa nous sommes plus dans la légalité. nous sommes plus Macky bu xoolee les statistiques. de ces échéances électorales yi moom la am depuis 2012 ak léegi moom war na gis ne instant mu ngi dans une courbe descendante strictement descendante euh, par rapport ak 65 pour cent bi mu tàmbalee woon en ba instant bi à chaque élection mu ngi perdre lu ngand ci électorat am Macky fekkoon dafa am intelligence sax xool bu baax les les les faits wala jéem a xool nu mu jéem a créer une situation mu génnee convenablement dans ce pays bañ fi créer le chaos ndax encore une fois nag. on avait donné à Macky Sall bi nga xam ne un pays stable relativement stable ko un pays dans le chaos jox ñu ko pays bu nekk ci ay guerre ci ay fitna donc devoir am la moom mu jéem a veiller à rendre ce pays comme il l'avait reçu yàq na lu bëree bëri euh, lu bëri yàqu na certes waaye ba tey dabaatal mën na nekk donc man jàpp naa ni c'est pas encore la fin c'est pas encore trop tard il peut se ressaisir euh, euh, lu mu ressaisir ressaisir tamit il y a des choses xam ne tam mënta ñàkk te loolu moom il en est conscient Macky a fait trop de mal dans ce pays Macky a fait trop de mal euh, et de d'injustice ba pare Macky a trop joué dafa foo lu bëri bëri ak lu askan bi bokk donc Macky sait pertinemment que demam Sénégal war lu mën a du mën a du mën a du facile daal ndax il n'a pas créé cette facilité là ci biir demam et il sait que il sera même s'il se bat dafay perte temps rek Macky mu mu xeex ak mu ñàkk xeex moo ci yemale il va il va rendre le pays ñu ko ëppoon doole dàq ko xeex ñàq na seen dëkk Blaise Compaoré ñàq na dëkkam ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne jarul tudd. je que aussi il pourrait faire le modèle Poutine créer un candidat qu'il va faire gagner et plus tard revenir. parce que loolu c'est probable. Macky amul intelligence boobu man je me dis que non non il Poutine n'est pas Macky Sall Poutine c'est un c'est agent du renseignement bi nga xam ne quelqu'un bi nga xam ne qui est furieux un homme du sérail Poutine a été directeur du KGB. Poutine c'est quelqu'un bi nga xam ne wax dëgg yàlla sooy xool sa sa xam ne kii c'est un homme soo xoolee sa xam ne c'est un dafa ragal Macky ñemewul. Macky actes ragal moo tax mu koy def Macky c'est un frustré c'est quelqu'un d'instable psychologiquement taxaw xool sax di ko xool di xool ses actes qu'il pose sincèrement de toi à dama koy commencé yërëm je lui gis ne Macky ko war a yërëm Macky actuellement il est perdu Macky xamul fu mu jëm Macky xool même politiquement Macky il mënul déterminer wu Macky te dit après local damay teg un premier ministre nangam nangam il parvient pas le faire. mënul teg local ba léegi ba législative mënul teg un premier ministre il avait prétexté que dañ ko jox Union africaine il n'a plus de temps dafa sonn nangam mais il parvient pas à mettre quelqu'un Macky dans ses choix politiques il se gourre chaque fois su tegee dara dafay ñàkk élection yi ñu mu ñu mu investir yëpp ñu bëri ñu mu gënoon yaakaar ñoom Diouf Sarr tout le monde tout le monde a perdu Macky a peur en réalité Macky instant yi si tiitaange la nekk te nag euh, moo yeey ndax quand on mal mënoo récolter que mal Macky sait qu'il va finir mal et dina rendre ay comptes Macky mënul jóge si dëkk bi ni taxaw bàyyi ko muy dugg avion di dem di wër ci àdduna bi non c'est pas possible pour faire la il faut nga nekk quelqu'un bi xam ne jantal la danga war a def lu rafet euh, def yoon def lu nice ah oui nga def lu nice non loolu kese sax du sauver il faut li mu ñi mu làq mu mu mu mu mu bañ a dem élection mu ñàkk wala dem élection moo looloo yem dem ak ñàkk dem moo yem parce que Macky a dafa dafa foo ak lu bëree bëri lu askan bi bokk du wekku nag léegi kon waaw moom kay il a le ji nga dañuy wax ni ji euh, nga xeex. est-ce que yéen tamit doo leen may possibilité. day mën dem tranquillement parce que li ngeen di wax nii mu dem entre man dama jàpp ni xeex day mettil duma rek dafay mettil sa ay duma ndax allah kulli aal lay duma maanaam mënoo jël alalu askan bi jël ko fooye ko jox ko sa ay rakk ak sa ay goro sa ay nit di ko caaxaanee jël lépp lu askan bi bokk ngi signé ay décret di ko jox ay tubaab di ko fooye ba pare nga ne da dem si jàmm ñëpp ne waa macha allah bravo lu mënul nekk Tidiane c' est pas possible il faut que qu'on sache que les deniers publics sont imprescriptibles et képp ku ci fo ak ku mu mënti doon bu ci doit rendre compte li soo rendre compte nag euh, tu seras positivement ou négativement sanctionné on va on va donner un quitus de la macha allah tu as bien travaillé wala boo on te sanctionne parce que tu a da nga foowee mais ala kulli Macky va rendre compte après son. dernière question boo xam ne sport la gis nañ Sadio Mané mu doon posé benn photo xam ndax gis nga ko avec pour la bière. Mhm. vraiment mu bañ a jël euh, euh, moom tenirul euh, verre bi ci loxoom am na ñuy wax ne mënoon na bañ a bokk sax ci photo bi looloo gënoon. Mhm. mais am na ñoo xam ne ils ont apprécié. Mhm. en tout cas décision boobu nga xam ne jël na ko moom ak un autre joueur de notre pays africain. Euh, ndax nga ko jàngatee quel est message que tu envoies à Sadio Mané. waaw euh, nu ko sax vi bu bu doy waar la d' abord damay njëkk man photo bi nga ma gis tey dafa dafa circuler bu baax a baax a baax. et wax dëgg yàlla c' est on a la promotion sax de la bière en fait photo bi de manière inconsciente les gens ont fait la promotion de cette bière là sans sans dans un pays bi nga xam ne Sénégal wax dëgg yàlla gis naa ñu bëri si kaas di wax mais Sénégal c'est le dix-septième pays africain en matière de consommation d'alcool en 2020 nous avons fait 30 millions 900 mille litres de sangara la waa Sénégal naan pour dëkk bi nga xam ne 95 pour cent ay musulmans lañu nous sommes devant le Kenya devant la Zambie ñëpp ñoo leen dàq naan donc nga xam ni kon Sénégal ñun on a nous sommes un pays bi nga xam un pays d'hypocrite parce que dëkk bi neen ay musulmans léegi nag man su may analyser jëf jooju Sadio Mané def damay d' abord pour moi c'est une très bonne chose euh, je je dirais pas jusqu'à le féliciter ndax wax dëgg yàlla juit bu bañ ne laaluma sàngara gisuma lu extraordinaire loo def ba ñu war a féliciter un musulman warul laal sàngara c' est totalement ordinaire amul si extraordinaire. léegi nag bari ci joueur yi ñuy waay na. c' grave nag xam nga nag li si yéeme mooy su ma xoolee le fait au moins c' est à saluer c' à c' ndax au moins il rappelle à l'Occident que vos valeurs ne sont pas des valeurs euh, euh, universelles. vous n'êtes pas le centre du monde ba lépp loo def ñëpp ko war def et lii c'est un bon message c'est quelque chose d'important bi nga xam wax dëgg yàlla yor bàyyi xel la en dehors de ça gars ñu ngi sax ñu ngi xas yeneen joueurs ak yëpp man je dis que euh, la pertinence aujourd'hui ñun ñu bañ a téye sàngara bu téye sàngara waaye que man sama sponsor équipe sàngara bi ci la bo daf may fay xaalis man. ñu ngi wax waxu Sadio Mané ci wàllu sàngara mais am na joueurs yu bëri yoo xam ne lu ñuy sol mais jeu de hasard la dafa araam mook sàngara ñoo yem ñii c'est de très grande banque monsieur le Liverpool c'est une très grande bi xam ne Riba liggéey euh, Liverpool avant banque boobu sax c'était Carlsberg c'était un brasseur danois bi nga xam ñu ngi sol ay marques yi nga ay ñoom Heineken stade yëpp mu ngi si Heineken su ki sol Ligue des champions xam na Heineken donc euh, aujourd'hui c'est un modèle dans son ko analyser ko bañ a nekk dans l' émotionnel et voilà luy luy jàll. donc euh, vraiment euh, y' a beaucoup de choses yoo xam ne bon euh, xam naa ni sénégalais yi nag moom dañoo bëgg Sadio Mané moom Sadio Mané ko wax ci yoon gars yi lay mer vraiment pour man y' a rien d' extraordinaire qui s' est passé euh, non événement pour man ñun dañoo war a wax Sénégal gi ñu war a jéem a xool ñu ko réglé il faut ñu réglé ko incha allah rabbi. ñoo ngi lay jaajëfal dèjà ñu bàyyi la nga tàggoog invite internet yu Sénégal yi ak la doon seetaan. waaw jërëjëf euh, sëñ Tidiane bon c'était vraiment un plaisir nag wax dëgg yàlla seq ay tomb waxtaan yu am solo yi ak yow di jéggalu internet yi xam nga waxtaan moom des fois day ànd ak euh, ay imperfection ak yi nga xam ne ak ñenn yi xam ne mën na am nga laal leen donc euh, liñ ci bëgg yëpp mooy. defar ak leeral ak partagé donc euh, lépp lu ci jub ñu santee ko yàlla alhamdulilah lépp si dëng ñi xam ne si ñun la suñu doyee di la kese ay nit kese rek nit il est imparfait donc di ziar ñëpp leen balu àq di leen baal àq di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiix euh, ñu ngi dugg ci weer bu tedd muy weeru safar donc euh, yàlla ñu yàlla may safaru jàmm safar bu ànd ak tawfiix safar bu yàlla barkeel yàlla sottil aajo yi barkeel yëngatu yi jéggal ñu bàkkaar yi donc loolu yomb na yàlla yàlla am na ko wa axiri daawaana asalaamaaleykum. amina jërë ngeen jëf maa ngi lay jaajëfal yow tamit di la ñaanal jàmm ak salaam yàlla sàmm la sàmm sa njaboot barkeel liggéey bi cette partie yal na am dooley PDS bu mu amoon jamono yàlla yóbbu leen présidence de laal République parce que la finalité de tout parti politique c'est de la conquête du pouvoir yàlla mën na lu ne yàlla na leen ko yàlla defaraat mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal di leen dig daje beneen yoon fii ci senego point com ñuy remercier caméraman bi bay di ndaw di ko jaajëfal moom tamit ci liggéey bu rafet bi jërë ngeen jëf.